Ah, ginnaaw bi ñu leen nuyoo euh, sant leen gërëm leen ci li nga xam ne mooy abonnement yi nga xam ni yéen a koy continuer di ko wéy di ko doxal ci Aladji Malick TV mu nekk loo xam ne da ngeen koo def uniquement pour euh, yokk seen xam-xam uniquement tamit pour information yoo xam ni yu wér la te wóor moo leen fi bàyyi nga xam ne information yooyu ñu nit ah, dañu koy segg bu baax a baax euh, la ñuy ñëw ci bopp bopp xibaar yi mooy ki nga xam ne mooy Fabinho nga xam ni moom mi doomu brésilien la nga xam ne dafa am kàddu yoo xam ne yebbi na ko tey mu am ñaari interview yoo xam ne ah, daanaka benn bi def na ko ak média anglais yi beneen bi tamit ah, mu def ko ci li nga xam ne mooy ah, compte Twitter am dañuy bàyyi bi ci média anglais yi def bi ci compte Twitter nga xam ni moo gën a wér nga xam ni daanaka daa dugg ci caaye waa Liverpool ba jeex tàkk moom mii di Fabinho am na loo xam ne naqari noonu na ko waaye loolee nëbbu ko benn yoon ci compte Twitter bi nga xam ni yëkki na ko mooy man mii di Fabinho nga xam ni am na déception goo xam ne Sadio Mané lu tax euh, mu jóge Euh, fële nga xam ni mooy Liverpool euh, tey it ñàkk a yokk contrat boobee euh, bari na loo xam ne maanaam naqari na ko ca lool loole amul benn yoon bu mu koy gase di ko nëbb da koo wax ñëpp di ko dégg tey it moom mi nga xam ne mooy milieu terrain Liverpool bi nga ne daanaka séddale ba nga xam ne moo ko doon séddale di ko jox Sadio Mané ak ñoom Mohamed Salah bii mel ni ab taw loolee dina manqué bu baax a baax gone Liverpool yi mu yokkaat ca tamit ci ñëw gi nga xam ne indiwaat nañ fa lu mat ñaari suyet ca Liverpool ma nga yëbbi ay kaddu ba tey tuddaat Sadio maana pour la deuxième fois gone ak Sénégalais yi Euh, kooku nga xam ne moom lañ ko remplacer moom moomee wala ñoo ñooñee mënunoo wala boog dina jafe lool ñu remplacer ki nga xam ne mooy doomu mbàmbale bi wala doomu mbàmbale bi mu nekk loo xam ne information yoo xam ne yu wér la ni moom mii di doomu euh, brésilien bi yëpp bi na ko euh, mu nekk naqar boo xam ne denc ko ci xolam da ko belli mu tasaaroo ndax mu génn ci moom Sadio Mané moom booba fekk na ma ngay gondaanaat te réew ma nga xam ne mooy Amérique ci pré-saison boo xam ni ma ko yëngal nga xam ne dina fa am match yoo xam ne dina ko yëkki benn ca match ya nga xam ne gone Manchester City dina ca laaleeg ñoom loolee lay bàyyi xel waaye leneen li ci des lépp moom mi ngi ci ginnaawam la mu dëgmal mooy indil ay trophée na indil ay ndam la nga xam ne mooy der bu ñuul der bu ñuul bu ñu ko waxee Sénégal ma nga sëmbaxlu ci biir yeneen information ah, ñu ngi koy indi léegi ci Aladji Malick TV